dañ ci ànd ak Serigne Saliou Seck dalee nag jàmm Macky Sall am na xëy mu bees tax yéen kaay yi nu xëy xëy dinu ko xibaar Sud Quotidien Macron moo recruté Macky Sall mu nar a p Tribune yéen for Peace and Planet démb la ko Emmanuel Macron embauché Macky itam nangu ko l'Observateur ne njiitu réew mi di président Macky Sall ci bu nu amalee élection présidentielle yu atum 2024 ba noppi bu joxee lenge yi ki ko nar a wuutu dafay noppalu rekk dem liggéeyi ndax mooy nekk envoyé spécial bu Pacte de Paris pour pour les la planète le soleil national ne dëgg la boole ci di leeral li xaar président Macky ci boobu ndombal tànk journal L'As ne lu ci mën di am daal président Macky moom am na meneen xëy mu koy xaar réew mi quotidien ne njiitu réewum France mi ko ko jox di Emmanuel Macron ca forum de Paris sur la paix tagg na fa Macky Sall tatagal ko ne ko dàllinkoor nga jàmbaar nga sa taxawaay ci réewum Sénégal ci déndu Afrique ba ci biti réew gàcce Vox Populi ne ay kuréel yu ne te ni bàyyi xel démocratie ci déndu Afrique ñoom gisunu loolu ndax ñoo ngi doxaliinu yoon ci mbir mbiri Ousmane Sonko doxaliin gi nu mujjee amal ci administration territoriale yet neexut Aly Ngouille Ndiaye Walf Quotidien yenn ci préfet yi ak sous-préfet yi dañ leen a jële fa ñu nekkoon yóbbu leen feneen Aly Ngouille Ndiaye jàpp ne kàddu yi jot a jip di naan ñooñee lan ko jege moom Aly njaay moo tax ñu jële leen fa nu nekkoon mu ne bu dee lu am la doxalin gu salte la ñu fekkaat ko ci Sud Quotidien moom Aly Ngouille Ndiaye mu fay xasaraayu di naan lu ni mel rafetul cim réew réew moomee lay laaj moom Aly Ngouille Ndiaye ci élection présidentielle yi nu dëgmal enquête yéene kaay ne Idrissa Seck itam njiitul parti réew mi moom it day laaj réew mi waaye li ëlëm journal bi moo di jamono ji nga xam ne candidat ci wàllu politique nga xam ne saa su nekk ak nam cay doxalee su su aane bi ne Souleymane Ndiaye moom lijjantil na Amadou Ba 44 ci deuxième lot bi Les Échos ne secrétaire général de la synergie pour un développement durable honorable S2D di Souleymane Ndiaye fi mu toll li mu jot a dajale ci ay parrain ngir Amadou Ba toll na ci téeméer ak fukk ak ñaari junni yu fukki parrain Vox Populi ne beneen candidat di Khalifa Babacar Sall moom itam moo ngi teg yeneen i pexe yu wuuteeg digge yi nu miin ci woy politique yi li ñuy bëgg a miin ci réew mi fi mu moo di waxi mbëkk mi Le Quotidien am na juróom-ñetti téeméeri sénégalais yu nu rapatrié ca diggante Dakhla ak Nouadhibou Barça wala Barsaq itam moo yitte libération Bargny waaye ba ñu naree suux ca lan dellusiwaat waa ji ci l'observateur jotoon na jël gaal gi moom nee na dina dellu journal Futurs Médias bi tey dafa xëy dalal ay nit yu jot a am lanteeg mbëkk mi waaye am na ko ci wax ne jot naa jël gaal gi juróomi yoon sottiwul waaye bàyyeegul buy gisaat gaal di dem noppeegul sax ngir teggi tànkam tànk ak tànk mbagg ak mbagg la waa waajuri ndongo yi bëgg a def ak seeni doom Vox Populi ne li ko waral moo di cigarette su yees seeni jëfandikoo journal bi ne cigarette électronique ak sisa yi ñoo ngi toj école yi saytu la fa élèves yi di nekk ndax foofee lañ koy lijjantee li ñu war a lijjanti kay moo di ñuy liggéey ci secteur agroalimentaire yi le quotidien téeméer boo jël fukk ya képp ci am toppandi ci wàllu wér-gi-yaram tàggat yaram stade yéenekaay ak record yéenekaay nee nan Aliou Cissé fésal na liste footballkat yi war a dajeek Soudan du Sud ak Togo loolee aju ci éliminatoire coupe du monde 2026 waaye yéenekaay yi nee nan amul benn coppite bu am solo bu ci rastaman bi def lu defu waxu lu ay di jàmbat sunu làmb ne combat bi ñu fi doon jàmbat ab diir nara dox ci diggante tafaatin ak Eumeu seen suba lay doon ca arène nationale yéenekaay bi ne bu arbitre bi sifflé kurpañ mënu cee ñàkk ndax jàpp ne ñaari mbër yépp ay xeexkat lan te suba lépp dina leer mambay ñaa dafa bëgg leeral liñ ko tuumaal les ko ne ay nit yu nekk ci réseaux sociaux yi ñoo tuumaal mambay ñaa ne dafa ëmbal ñaari mag ak rakk tax mambay ñaa porté leen plainte ca kanamu procureur abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ak ci bitim réew